jàng alquran wala di ko jàngalante wala di fàttalante ci seen biir li dul yàlla subhanahu wa taala day wàcc ci seen kaw ak dal sëmbër ko ci seen xol malaaka yi tiim leen suñu borom tamit daal leen tudd fa moom loola lu rëy rëy la yaakaar bi ñu ci am ba di ko fàttali yàlla na borom sootal defal na ko kon yooyu yëpp dafa mel ni daje na ndax fii ñu nekk am nañu ci biir suñu borom yi ñuy def fas yéene def loo xam ne ak jaamu la ci jaamu yàlla yi ndax takk sëy dafa bokk ci bunt yi nga xam ne ci jaamoo yàlla subhanahu wa taala amaa na nit ñi ñii lim ñii jaamoo yàlla dañ ko ci dugal waaye oxom kay tala ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni ak ragal yàlla ci moom la fekk baax ba amee ci aw nit ñoo xam ne dañoo wax ne ñoom day duñu jël soxna ndax dañoo gis ni yonent bi daal ni muy jaamoo yàlla dafa bari lool te yàlla jéggal koy bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj kon daal ñoom gis nañ ni nelaw guddi da leen di tardeel comme dañuy julli bis bu nekk takk soxna da leen di tardeel kon duñu am soxna lekk naan ci waxtu bëccëg da leen di tardeel kon duñu naan dañuy woor ba yonent yàlla bi yégee loolu dafa woote ci jàkka ja ba ñu ñëwee mu ni ci teggin ya sallallahu alayhi wa sallam ak am gu mu am sutura ak xam ni ñi wax yàq taxu leen a jóg waaye bëgg lu baax rek ndeke bari na ko bëgg lu baax te yoon moom jaar du fa waaye tuddut kenn mu ne lan moo dal aw nit ba ñoom ñu naan du ñu def lii du ñu def laa du ñu def lee dama ni man maa leen gën a ragal yàlla fuuf te damay lekk di naan di woor di dog di takk ay soxna ku xemem leneen lu wuuteeg lii ma leen wax nag kooku moom daa bokkul sax ci man kon takk soxna ak jaamu yàlla bu màgg la bu ñu delloo ci téere yi sunan yeeg si xaax yeeg fiq yi da ngay fekk dañuy ubbi buntu sëy ci buntu jaamu yàlla yi bal sax nag di ca wax lu baree baree baree baree bare suñu borom subhanahu wa taala yoonalal xeet wi ah góor bu tollee ci am soxna wala jigéen toll ci am borom kër yàlla subhanahu wa taala lu jiitu loola kat dafa tëral ay frontière ci seen biir bul ko laal bu leen joxante loxo bu leen lii bu leen lële bu leen lële ndax séqu leen dara waaye yàlla subhanahu wa taala ci xereñam ci ay baat yu gàtt ah balaa ñooy julli tàkkusaan kat ndaw si maak yow ñoo ci bokk yam jigéen joo xam ni balaa ñoo julli tàkkusaan maak yow ñoo ci bokk yam bu amee lenn loo ma ci ëppalee mooy yow ma fa nekk doon ko labat l'islam mayatuma man ma wax ca benn kàddu loolu rek nga ma ci ëppalee waaye amut lenn loo ca sañ du sañ naa ko ca lañ la ca tere lépp lan ma ca tere waaye daje bi ñu daje wax ay baat tënk ko ci téere yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah loola daal di sabab ñoom ñaar ñu mën a ànd lewante daganante buum yan takkoon yépp ñu ni tekki leen ko loolu la muy wane mooy kon kat ak jaamu yàlla bu mag la lislaam a ko takkoon waaye moo ko tekki moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni wa min ayatihi bokk na ci kawtéefi yàlla yi ah ba muy lim kawtéefi sunu borom yi njëkkewul ci sëy waaye dafa njëkke ci sosut doomu aadama yàlla subhanahu wa taala mu ni bokk na ci kawtéefi sunu borom yi bind gi mu leen bind ci suuf te loolu ma nga bàyyi ko ci bàyyi aadama ndax comme ni ñu ko xamee aadama alayhi salaam bi mu wàccee ci kaw suuf ah borom bi subhanahu wa taala dafa dogal moom ak soxnaam kese la moo ni xalaqakum min nafsin waxida muy bàyyi aadama wa xalaqa minha zawjaha muy soxnaam waaye boobu ak njaboot amatut amagut kon aadama mooy borom kër gi xawaa mooy soxna si ñoom ñaar ñu ànd borom bi gis nga mu ni wa bassa minhuma suñu borom boccee ci ñoom ñaar rijaalan kasira wa nisaa ay góor yu bari ak jigéen comme ni ko borom xam-xam yi di nettilee dañ doon am njaboot saa bu ñu amee am góor ak jigéen muy ay seex booba li am tey amul woon askan wu sori bañ naan kii ak kee ñoo bokk loolu amut woon waaye fii nag la nit ñi xamee ni ñëpp ñoo bokk moo tax doomu aadama ayib gi muy sikkalee nit diw moom nangam la diw nangam la ba tax bu ñu yegsee ci buntu takkum soxna duñ ca mayante wax dëgg yàlla ñàkk xóotub xam-xam rek la moo tax Muawiya ibn Abi Sufyan dafa gis benn kaw kaw dafa ñëw gis buntu néegam nit ñi rang ak a dugg ak a génn ñii di génnaale ay addee ñii di nangam xam naa ay mbokki deretam lañ waaja moom it faa waaxu ba yegg ci buntu ba rek fëgg bi mu fëggee mu awee na kookan la mu ne ko man la sa mbokkum deret mu ne ko mbokkum deret mu dëkk fan mu wax turé wax mu ne ko aman kat kooku xaw ma ko yow fu mbokkee maa yow mu ne ko ca maam aadama mu awee daal di xool li mu doon joxe ci bis bi mu yëkkati lu ëpp loolu daal di ko koy jox ni ko yow nag yaa fi tudd mbokk gu wér gi kon kooku moo wax dëgg kooku moo xam ndax ña ñépp ñoo bokk borom bi doon def seex seex ba judd woon daaw moom seex bi judd ren ñooy ànd sëy déwénee ñu defaat na mel noonu ba ay nit yu bari tasaaroo ci làkk yi ñëw ñu bari jàpp ni làkk yi sax dafa nekk loo xam borom bi da koo yenkee waloon aadama déedéet comme ni ko borom xam-xam yi di waxee ah nuux alayhi salaam ba mu wàccee ca gaal ga ca dëkk ba ànd ak juróom-ñett fukki nit juróom-ñett fukki nit yooyee ñu daal di samp ab dëkk tuddee ko noonu muy sama noonu juróom-ñett fukk ci ni ko nel ni ci borom xam-xami taarix yi waxee danoo nelaw ba yeewu rek kenn ku ci nekk di làkk sa làkk bopp waaye nuux mu alayhi salaam moom dégg na làkk yooyee bu ko defee ku xamul sa làkk morom rek mu jottali la ko foofa la mbir yi di wasaaroo di wasaaroo ba àddina bi mel ni mel tey lii de bu amee lenn lu muy tegtale ca la gën a tuuti dafay tegtale màggaayu yàlla subhanahu wa taala ndax moom rek la woon càppaaculi ci nguuram gi kenn fekk siwu ko ci wéet taxut mu bind nit ñi am ci ñoom aajo tamit taxut waaye nag nun la bëgg a dimbali moo tax mu sàkk ñu bu ko defee traceel nu aw yoon nag mooy waral ànd di mën a moo tax suñu borom ba mu noppee ca fàttali cosaan googa mu ne min ayaati yi bokk na ci kaawteefi yàlla yi nga xam ne jar naa yéemoo ah an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha yàlla mu ni ma sàkk ci seen biir ci ay nit comme yéen suñu borom mënoon naa sàkk mi def mu ñuy tuddee nit sàkk yeneen leneen lu ñu tuddee leneen muy askan yi mën na jot mën na jaxas jaxasonte waaye su boobaa it wax dëgg yàlla ñii mu mel kon du ñu mel moo tax suñu borom wutal la koo xam ne yaa moom a yam yéen a bokk benn deret bokk lu ngeen di yëg ak lu ngeen di bëgg azwaaja ñu nekk ay soxna waaye xoolal suñu suñu borom subhanahu wa ta'ala benn jubluwaay la tudd foofu dañuy di taskunu ilayha ngir ak dal kon ndekete maanaam jëmmi samp kër jëmmi samp kër lépp luñ tey wut rek bu bootu wut ci ginnaaw góor gi mën a amuk dal ci soxna si jigéen ji mën a amuk dal ca borom kër ga objectif moom rate na dal nag lu yaatu la ëpp ëpp na ni ko nit ñi di déggee ndax dal dafay dugg ci buntu jaamu yàlla sax ah su ko defee kon aji gëm yàlla ji su jugee di wuti soxna te yonent yàlla bi nee na yéene mooy mu fegu bañ a moy yàlla yonent yàlla bi nee na yàlla daf koy barkeelal su yonent bi nee na yàlla nee na garanti na ñett ñii kenn ku ci nekk boo jaaxlee ñëwal fi man ma dimbali la ki gàn gàpp ngànnaayam génn foo jëm mu ne damay jihaat fexe ngir baatab yàlla yëkkati ku ca kaw baatab kéefar daanu ci suuf kooku bu soxlaa ndimbal yàllaa ko garanti ah ki nga xamante nii moom it dafa jub ab sangam ni ko ah yow kat boo bëggee ma goreel la da ngay indi nangam te muy jullit bu gëm yàlla loola mu jub di ko wuti ngir bëgg am gore ah su boobaa su fekkee jaam la yàlla moo ko garanti dimbali yeneen bi ne ki jub pir wuti soxna te li ko tax a takk soxna mooy fegu kooku yàlla moo ko garanti moo koy dimbali moo tax Aïcha radiyallahu anha ba mu déggee njàngale yi mel ni ci yonent bi dañuy man de gisuma kon ku gën a feebar ku bëgg yàlla ubbil ko bunti wërsëg te jaareewu ko ci takkum soxna la tax Aïcha di wax loola daa dégg lu mel noonu ca baayam ndax Aboubacar moo daan wax naan dégg déggal leen seen borom ci lim leen sant sunu borom dëggal leen ci lim leen dig sunu borom moo ni bu ngeen ko defee nii rek ma defee leen ko nee kon ndekki kat ni nit ñi gëm jàpp ni takkum soxna kat lu diis la lu mat a waaj la lu mat a nangam la ay fere lay dolli ay nangam déedéet bal day ubbi bunti wërsëg loola moom yaakaar naa ni ñu bare bare bare dund nañ ko ba aajut ko xam-xam bu xóot pour xam ko ndax nit toll na ci ay jafeñ-jafeñ yàlla wërsëgal ko mu am soxna rek bunt yi ubbeeku mën naa am benn mu wutam beneen sax borom bi ubbil ko gën ko ubbili bunt ndax bul fàtte ni sunu borom kii daf koo jël lonk ko ci saw loos yàlla nag laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha aw illa wusaha yàlla du teg bakkan ak coono kon kii mu yëkkati jox la ko te fas yéenee boccee ci moom ay doom yu mu lay jural faw ñooñu bu ñu ñëw dañuy indaale seen wërsëg moo tax bi ngay takk soxna yan la ca jox ak xéewal ya ca topp ak ba ngay gént yan la ca jox ak xéew yëpp yëpp tawfiqu yàlla mi ngi ko jaarale ci dugg liir bi ndax bu liir bi ñëwloon du am kon fi ne am na wërsëg yoo xamante ni fi ne pour nga jot ci waa jëndam yëkkati saakob ceeb boole ko xar ñëw may la ko kooku sa ngénte lee tax fi ne bu dul woon a ngénte li du ko fi indi kon wërsëg bi yàlla mi ngi ko jaarale foofu moo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir te nu ko neex nag la koy jaarale kon ak jaamu yàlla la waaye nag ñu xam ni sëy jaamu yàlla gu foor la gu rëy la gu ëpp naa foye ndax alquran ba ba ba mu jeex al mithaqul ghaliz muy accord bu tar boo xam ne amul benn négocier yàlla tudd ko lu dul ci ñaari mbir takkum sëy ak yónnent ak yónnent وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا ميثاقا غليظا am yónni bi yonent kaay dem dawal doxal ma nangam yàlla mu ne ah kooku kat dañoo siñeente ay pacte yu yu yu tar sax yoo xam ni yu dëgër dëgër la boo dikkee ci sëyit loolu la wax ba muy jafe-jafe bu amee ba góor geeg jigéen ji nar a indi ay benke ñenke sunu borom mu ne wa kayfa taaxudunahu wa qad afda baadukum ila baadin wa axadna minkum mithaqan ghalida kon dafa mel ni ceen la bu ñu takk ci sa baat ni la lii kat jaamu yàlla bu foor nit ñi dañuy jàpp ni bànneexu la fekk dëgg la bànneex am na ci kat waaye nag jaamu yàlla rek la nag moo ci ëpp de te it bànneex ba nag bëriwu ca nag comme ni ko mag ñi di faral di waxee naan butéelub kaani la boo xam ne buntu ba lema ca nekk waaw loolu la guux yi njëkk yi moom lem lay doon waaye ca topp yépp moom dana wex xaat ah su ko defee kon nit ki yëg ni lii ak jaamu yàlla la benn saxaaba la ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah waaw kon ab jullit moom lu mu def am ci tiyaaba mu ne ko wa mu ne ko wa ah waaw man ànd ak sama soxna si sëy ak moom sax dama ci am tiyaaba mu ne ko ah waaw boo ko defloon da nga koy defee fu mooy yàlla mu ne waaw soo ko defee foofu est ce que di nga am bàkkaar wala di mu ne ko waaw di nga am bàkkaar kay mu ne ko jeex na kon boo ko defee am tiyaaba kon dëgg-dëgg borom bi subhanahu wa taala moom dafa mel ni comme ni ma koy faral di waxee daf noo bindoon pour ñu dugg àjjana fu ñu jàdd ñoo fa jàddal suñu bopp ndax lépp loo xamante ni yow say intérêt bopp da caa nekk ba pare nga jariñu ca àddina ñu tegal ci ay tiyaaba ah wax dëgg yàlla loolu day rëy na lool kon ci bunt boobu kenn ku nekk mu dal di yëgaat responsabilité bi nekk ci jël soxna responsabilité bi nekk ci yar ko kooku dama ko war a yar dama ko war a dimbali njaboot yi ci juddu man la ko yàlla laaj ëllëg yooyu yëpp ay masuliyaat la yoo xamante ni yàlla dana la ko laaj keroog bis penc kon sëy ah lu rëy la lu foor la dafa mel ni mbokk mi daal kon ci buntu boobu borom bi subhanahu wa taala yoonal ak àdd ah bu ko defee loolu mooy sabab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee société bi l'islam ah fekkoon na neneen nuñ daan takkee sëy yonent yàlla bi ñëw di takk sëy ci takkin wii ñu gis ah fàttali xutba nit ñi waar leen delloo leen ci yàlla ah su ko defee ñu xam ne lii ak jaamu yàlla kon dafa mel ni ci tënk rek loolu doyoon na mel ni mbokk mi doon xaar xam naa bu ñëw kon lii nga xam ne moo nu fi tax a daje ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ko ci yi muy barkeel te boole ko ci sëy yi nga xamante ne ndam lay doon ñeel lislaam te mu nekk yokkute ñeel xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yomb la suñu borom wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain